ne sera pas faire et on ne lâchera pas l'affaire. Nos droits escavés jusqu'au dernier centime. mënatuñoo muñ doyal nañu sëkk ñii di ay liggéeykatu Excaf Télécom ñoom nag ñaari fukki weer ak juróom-ñaar a ngi nii ñoo ngi daw seen ginnaaw salaire te mu fexe ba jot ko bu weesoo loolu ñoo ngay ñaawlu itam gestion entreprise bi. laaj la saa waay mbir mi fu mu toll le seul moyen que tu trouves c'est de les licencier yemul ci dàkk bi de. bu mu yëgee ni tey jii dañuy ñëw conférence de presse dafa jël benn note di bind maanaam liggéeykat yi ak ñi nga xamante ne ñiy contesté pour seen salaire bu kenn teg tànkam escave te waaj fu mu teg loolu. leneen lu ñuy ñaawlu itam di taxawaayu SYNPICS national ci seen situation. mais on a l'impression que SYNPICS national ils sont proches de Sidi Diagne. parce que balaa ñuy ñëw ci FRAPP dañoo njëkk a gis waa SYNPICS national pour exposer leen sunu cas. waa ji ñëw na daal ni mu doon Sidi wax Sidi. ça fait plus d'une année ba léegi fourage daal fi dem nga yaakaar ne tey jii ñun dinañu yaakaar ñooñu pour suñu affaire réglé wu duñ ko def. ginnaaw bu ñu amulee ndimbalu SYNPICS national ñoom liggéeykatu Excaf yi mën nañoo yaakaar rek si FRAPP bi nga xamante ne jóg na ngir jàppale leen. gën saa sori ajjuma bii di ñëw dinañ def manifestation buntu Excaf Télécom. on vous soutient ndaxte lii dal liggéeykat yi ak les sénégalais dans l'anonymat moo commencé dal yeneen sénégalais yoo xam ne dañoo siiw coow li nag waaw. si bilee conférence de presse bi nga xamante ne FRAPP woote na ko yeneen collectif itam bokkoon nañ fa ngir fësal seeni nakar di collectif des enseignants pour l'habitat social liggéeykatu Sémélec ak ñi nekkoon katu Transplat collectif pour la défense des intérêts de Podor ak collectif du Gare Ouest ñoom ñëpp nag ñu ngay woo nguuru Sénégal